jamono métti na dund gi cher na weer ak weer jegalantoo sunu xel dem ci ñi fay luwaas ak jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel soxna May di locataire ci Parcelles Assainies jot na ci sànni ay kàddu. lokation yàgg naa ci léegi mun naa ne léegi am naa ci vingt cinq ans am naa ci vingt cinq ans parce que avant ma marié laa ci nekkoon waaye léegi moom dafa gën a metti parce que ak jamono bi léegi ak jamono bu njëkk bi doo woon benn location cher na boo yoree njaboot day metti ndax mu noo jël benn néeg dangay obligé jël néeg ak saal tey ji booy fay quatre-vingt-dix mille amoo salaire si jëkkër day taaba taaba yaa koy dimbali yaa ngi ay njaboot yu sew parfois du chaque jour lala yàlla di may nga am pour nga fay location yenn saay nga am yenn saay weer ñëw doo am mu mel na chère allocation bi du ci ñëpp Fatou Camara xamal nañu di bayeeram dafa respecté santaane nguur gi te booba ba léegi yokku ko benn yoon te booba ba léegi yokku ko benn yoon. borom kër gi moom macha allah amul benn problème moom teg ñu pression sonal ñu délocation bi daal li gars yi di seeral mbir yi moom da koo yombalal nit ñi ah lépp si borom kër yi la rek nga nit ku nekk yaa moom sa kër yaa xam ni nga koy defee ah ñun de fii bu ñu dëkk nii moom macha allah. borom kër gi dafa dafa comprendre nit ñi yombalal ñu mbir yi li gars yi di ko seeral di fayeeku lu bëri moom dañ koo wàññil depuis début bi la bi ñu commencé bu ñu naan wàññi da koo wàññi ba tey yokku ko. jamono ju metti waral yenn saa ñuy yéex a fay wala di dajale mu doon li nga xamante ne ni bailleurs yi ak agence yi duñ koy faral di comprendre. borom kër yi ñàkk nañ kersa agence ne leen danduma bu heure bi jotee jafe yu metti ngay am waaw te weer ak moroomam dafa jege jege jege boo xamante ne. da ngay ne déedéet da obligé sa parfois da ngay am problème ak ñoom ndax weer day dee nga war a fay affaire yi demeewul noonu dëkk bi doxul te Sénégal ñi taaba taaba ñoo ëpp ñuy liggéey salaire ñuy liggéey salaire ñi néew lañu parce que mun naa ne ñëpp dañuy taaba taaba moo tax chaque jour ci ay jafe-jafe la ñuy dëkk ci location yi. day dem ba dangay tollu moment yoo xam ne sax dangay war a togg lu baax lekk ak sa njaboot sax danga koy mujjee boycotté. pour mun a dajale location yi mun a libéré wu nga mun a tranquille ak sa njaboot. ah agence yi la ak kër yi nga agence yi tamit ñoom may loolu leen borom kër yi di wax def leen lii ñoom dañ ci yokk am caale am seen wàll. boo yéexee fay dañ lay indil papier boo amuloo fay tamit boo toogaat tuuti ñu indil la beneen papier boo toogaat tuuti ñu indil la papier pour nga génn. ñoom xamuñu jamono neexul borom kër yi tam du ñu nangoo comprendre. ñoom seen xaalis moo leen intéressé ndax am na ñoo xam dañu naan seen xaalis ci la ñuy jël di dund ak seeni njaboot ci lañuy ñuy fay seen njabooti école ak leneen agence yi dañuy naan ñoom seen yoon nekkul ci sa jafe-jafe ndax ñoom seen xaalis lañ lijjanti boo amulee nag dangay obligé dajale te boo dajalee dañ ñëw indi la jafe-jafe yi day ñëw problème day am te loolu yëpp après day këpp sa kaw dangay obligé daw gauche à droite pour mun a lijjanti. waaw parce que Sénégal pour ñu aider la ci dara yombul parce que tey jii foo war a jublu ñooñu dañuy ñëw jublu ci yow location daal boo ci munti dégg metti na. ñoom locataires yi ñoo ngi ñaan nguur gi mu wàññi njëgu dund gi ngir coonoy payum luyaas mën woyof ci boroom kër yi. ngeen yeggale ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi nga xamante ne ñoom mun nañ dara ci réew mi ñu jéem a oyofal teg si jéem a oyofal daan yi nga xam ne ñu ngi ko teg ci borom kër yi. ndax ñoom tam ñu mun a wàccee seeni euh, kër yi ñu mun a yombal fay beeg yooyu ndax bu fekkee ne dangaa yombal fay bi te euh, kii nu mu tudd sax ni jiite wàññiwuñu dara taxi yi dafa seer ñoom tam dañu mun a wàññi bu ko defee ci kaw askan bi lay këppoo te bu këppoo ci kaw askan bi askan bi ñooy toot yi ak jooy ndax fi mu toll nii moom salaire amul dara amut taaba taaba la askan bi di dundee xëy uti loo am ñëw dundal njaboot bi loolu nag boo ci naree dajale location day metti chaque jour nga jàppante ak boroom kër gi ak agence na gars yi wàññi location bi nit ñaa ngi koy jooytu seer na seer na moom wax dëgg neex yàlla moom seer na nañ ko wàññi rek te xam ne jamono daa metti lépp a cher na si ñoom tamit moom mais nañ jàppale nit ñi ñu wàññi rek li jëm ci agence yi dem nañ ci ñett ñaar yi ñi ñu fa fekk nangu ñoo wax benn bi ñu xamal nañu ni boroom mu ngi woon tribunal ci benn àtte gannaaw ba ko benn locataire yóbboo ci yoon